jangeen jëf jangeen ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li gën a fës te am yéen ay forom fàcce ko bu amee ñu am leen métti lool ñoom ñoo di à la yi lée am ndaje mu yaatu moom la ñu kon di sàkku ci Mamadou Racine Sy mu abal leen euh, ci bopp seen conseil d'administration bi lée euh, golo di béy baabu dundee moo fi a jeex ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg leer yi nga xam ni euh, moom lañ ci indi waa coalition mu waat ne loolu amul ci biir xibaar yi da ngeen ciy dégg leer yi nga xam moom lañ ci indi Sénégal ndax du dañoo euh, delluwaat ci ci couvre-feu su fekkente ne euh, ñaareelu vague bi ñuy ragal am na Khalifa Diagne di ab euh, psychologue ne loolu li kon bés bu ko nguur gi décrété jàppal ne yëngu-yëngu dina am ci biir réew mi ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg kàddu yi nga xam moom la ci rotal bon mbokk yi lii daal mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum bisimilla ci xibaar yi bu amee ñu am leen métti loolu ñoom ñoo di suñu mbokki à la am ndaje mu yaatu mu lañu amal fu la nga xam ne ni moomoo euh, di ci bopp seen conseil d'administration boobulee euh, golo di béy baabu dundee mooy fa war a jeex euh, seen xaalis bi mu jàpp kon di ko def ci ay bëlëpp yi de bàyyi leen ñoom ñuy tumuranke moom lañ ne faw njiite réew Macky wax si ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro Théodore Semedo bu fekkee am na loo xam ne ñu ngi koy préparé du ñu dem buntu EPROS buntu présidence la ñuy dem ragaluñu ku ñu dóor ay lacrymogène ragaluñu leneen ay mag lañu parce que lii dafa dépendre ci suñu njaboot dépendre ci suñuy sët pension yi nañ koy yokk gis nga Sénégal ku dem retraite dugg nga ci biir pauvreté. waaw IPRES xaalis bi ngay yore bari na te nit ñi comme moom jotuñu ci dañoo sonn. na xaalis bi nañ ñu yokkal suñu salaire jàpp euh, pension yi tuuti na ay njaboot lañ yore duñu makk makk suuf. Ah, dañoo war a dund comme doomu aadama yi ñoom kenn koo ci gis mais ah, ma ngi leer nañ ñun ñu mel ne ko jóge ba ay ba après loolu jaaduwut président Macky Sall ñu ñaan lillaahi wa rasul yi bu nu mën a recevoir suñu mu recevoir nu ñu ànd ak suñu responsable taxaw wax suñu doléance tër bu ñu teg nit ki dem yoonam ñun bàyyi ñu ñun ñi nga xam ne ñun ñoo moom xaalis bi di tabax ay bâtiment yoo xam ne ñun yëguñu sax waxuñu ñu ci dara gisuñu ko parce que a parce que ñoom bu ñu récolté ay milliards dañ ko war a reversé waat ci pension yi dimbale ñu ko mais defuñu ko ay deux cent mille ay technicien de surface yi sax ay ay deux cent mille franc lañ leen di fay IPRES amu fa kenn koo xam ne di nga fayee ko salaire lu trente six te ñun ñoo moom salaire ñun ñoo moom xaalis bi fii wax ak yéen syndicat le stagnant il est depuis huit ans Ablaye Timbo n'a pu rien faire Ablaye Timbo Lorsque le président de la République a construit la plus grande mosquée, la plus belle mosquée à Pékin, Abdoulaye Timbo est allé à côté pour construire un poste de santé qui n'est jusqu'ici pas fonctionnel. Donc il a gaspillé l'argent du contribuable qui donne affaire boo xam inutile. Donc le mal de Pékin, c'est Abdoulaye Timbo. loolu day kàddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci lenn ci mbokki à yoo xam ne nga nekkee fële ca diwaanu Pikine toll nañ ci téeméer ak juróom fukki doomu aadama yu doon liggéey ci programme bi ñu duppee euh, euh, ñu euh, ko ci micro Oumar Kayre dañu doon liggéey dem dem ba ñu amal ñu bor ñun ak jigéen ñi ak xale yëpp kenn feyul leen ñu wàq wàq wàq bee sonn dëkk déggoon nañ borom réew mi ki njiit réew mi ñu wax garam mi rawer feyal bor yi léegi nag feyul bor yi am na ñoo xam ne jigéen ñoo xam ne dexe nañ sax bàyyi na seen bor yi man mi wax ak yéen yoral na ma fukki weer ak juróom am na ñu xam ne yéen yoral leen fukki weer ak nangam am ñu yoral leen benn weer am ñu yoral leen ñaari weer am ñu yoral leen fukki fan ak juróom ñoom dañ leen wax kaar leen rek dañuy fay dañuy fay dañuy fay ki ñu jëloon nekkoon foofu agent dañu ko affecté yóbbu ko feneen. léegi nag ki mu ki nekk foofu jooñ buñ ko waxee day wax moom yoonam nekku ci ñun dañu doon jimbat ay garab dañu doon gardiye tool yi bañ dara yàqu bañ sàcc giriyaas bañ. dugal tool tool yi jur yàq garab yu ndaw yi xam nga ku liggéey def bëgg am dara ku amul dara am nga jafe-jafe ku yaakaar woon ñi am na am nañu bor yoo xam ne ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ci bitig yi léegi nag fayu leen jorom bitig ñoo ngi leen topp loolu jafe-jafe bu rëy la président dañ ko wax ngir yàlla ak yonent bi nañu gëstu waa mbaar tubaab jooy nañ ba ba sóoli la ko fees na wakako gara mara mira e weret ñu feyin sunu alal bu ñu ne feyin booy boo ñu bañ foofu yaakaar liggéey mu bañ foofu ñëwaat ñu bañ foofu yaakaar liggéey mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di dem ba Hamadi Sow bu mbokk yi bu ñu jógee foofee ci diwaanu Louga dañuy xuus dem ci ñoom ñëpp ñoom mas wàcc ci mbedd takk ay sagar yu xonk ci di ñaawlu licence de pêche yi nga xam ne nii moom la nguur gi jël jox tubaab tubaab yi lee dañuy dem ci diwaanu Kayar fekk fa Ibrahima Ndiaye jël lanu bëgg jël lanu bëgg jël lanu bëgg nappkat yooyee nekk ci diwaanu Kayaar ñu ngi ñaan ngir am jën ndax mun a dundal seeni njaboot gannaaw bu ñu toogee lopp juróom-ñaari weer daanaka nappatuñu nañu aar géej gi ngir fexe rek mbëkk mi mën a jeex loolu moo leen yitteel tey da ngay xëy jàkkaarloog sa njaboot yépp kenn ku si di la wax may ma lu ma ndëkkee may ma lu ma re loolu ba kañ guddi ak bëccëg ñoom ñu ngi ci géej gi fi la am na si ñoo xam ni dañuy napp ba mu fees ay bato ñëw jël jën woowu yóbbu ko Europe ñoom nu continuer di napp ñoom ñoom fa nekk bu guddee bu nu taalee seen làmp yi jën làmp daf koy téye làmp yooyu ci la jën wi di nekk du nu fa jógee bato bu napp ba fees da ngay bàyyi ba beneen bato bi ñëw taal ay làmpam yow nga fay sa ay làmp génn bàyyi ko ak jën wi moom nu continuer di napp njabootu nappkat yooyu leen gën a sonal mooy tasub yaakaar la ñu am moo tax ñu ngi rek ñaax autorités yi jiite réew mi te di leen jéebaane jafe yi nga xam ne moo tee napp Sénégal bi jaar yoon bana yooyu dañu wax ni dañu leen a may ay licence ay accord de pêche ñu am espèce yoo xam ni ñoom lañ wax ni moom lañ leen may mais dañu leen a may 45 pour cent yoo xamante ni jën wu leen neex dañu koy napp loolu état Sénégal bi mu ko defee ba pare su fekkoonte ni dafa teg ay jumtuwaay yu mu koy contrôler nga ni ndax yàlla mais amul benn contrôle. amul benn contrôle kay. bata yooyu lu leen neex la ñuy napp ci géej gi nu mu leen neexee la ñuy nappe ci wàllu ndaw yi nga xam ne ñoom napp rek mooy seen liggéey ñoomi it benn yaakaar moo tax ñoom ak seen i njaboot daanaka sax dund gi demetul noonu moo waral ñu ngi ñaan njiitu réew mi i Sall mu fexe rek accord yooyu ñu signé ñu xoolaat ko bu baax ñu mën a di wéy di dund seen biir réew bañ a jël gaal yi ngir mbëkk géej gi jëm bitim réew. ñun nag li ñu naqari duñ ko jooy si ministre jooyu nu ko si ay maire jooyu nu ko kenn ñun président bi nga moo ñu yilif ñun ñëpp moom la ñuy waxal waaw si li ñuy wax ak moom nag ñu ngi si oo kilifa diine yëpp xam ne ñun ñii seen njaboot lan mooy ñun ñi nga xam ñoroon dem si gaal yi ñoonu toogloo ba pare maanaam respecté wuñ ñu di jaay suñu géej nu mu leen neexee te ñun ñii ñëpp ay mool lan ku si nekk dem nga Espagne lu mu deedee maanaam neuf fois wala cinq fois ñun Thiès Walfadjri Radio TV Ibrahima Ndiaye jërëjëf Ibrahima Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi Kobodda fa lañ jëm benn dëkk boo xam nga nekkee foofee ci diwaanu Ziguinchor nañu jàpp ne askan fa dëkkee li ñuy dund jamono ji mënees na koy méngaleeg dund gu wereyaan benn canal moo xotti seen dëkk bi def ko ñaar jural leen nag ay jafe-jafe yoo xam ni foog natt rek weesu na fa ko boda amul ndox amul courant yoon naka noonu Yankhoba Sadio moo wax ci seen kàddu ñu teew teewlu ko ci micro Amady Khalil Diémé ñu ngi may xamal ne élément boobu lay yembagul daañu ci del kon euh, ci kanam tuuti euh, dogal bi waa jël daal di wax ne dañuy tëj seen buntu yi seen buntu ci saison touristique bi euh, doon na lu metti acteurs ya fa ne te yëngatu ci wàllu tourisme ndaje mu yaatu moom la ñu amal ci njiital jaraafu dëkk bi di sàkku daal ci kilifa yi ñu xoolaat dogal bu ni mel ndax buñ ko jëfee amana xale yëpp daañu nekk ci mbedd mi taxawalu dañuy dem ci diwaanu Ziguinchor fekk fa Amady Khalil Diémé xam nañ ko club méditerranée dafa décider naan du ubbi buntom yi pour saison touristique 2020 2021 décision bi nga xam ne conséquence la si seconde vague contamination bu coronavirus si adduna bi dina doon gàllankoor si développement tourisme bi surtout si saison bu ren bi euh, si Casamance si Cap Skirring xam nañ foofu déjà nit ñi commencé nañu regretter lu mel noonu wante si beneen zone bu xam ne moom mooy zone Kafountine a Abéné loolu mën na doon lu métti pour population yi nga xam ne tourisme la ñuy dundee maire Kafountine nekk si département bu Bignona moom wax na rek naan li situation dafa mel ni situation buy ñëw affecté zone bi nga xam ne am na ay potentialité touristique yi nga xam ne yu wóor Victor Mfansou Diatta. waaw forcément dina am tiitaange suuf ñun parce que Club Med bu tëjee euh, ñun dañ koy sentir fii dañuy sentir impact bi fii nii ci commune de Kafountine parce que Club Med Med hôtel boobu la ñu yor comme fleuron bi nga xam ne moo gën a rëy moo gën a dugal ay ay ay touristes léegi léegi dañuy bëgg a génn dem si yeneen sites yi donc loolu forcément bu tëjee dafay impacter ci tourisme bi suñu commune. mesure boobu dina menacer ay emploi yu bëri bëri euh, fii si Casamance surtout si secteur du tourisme maire Kafountine mi nga xam ne dafa doon wax rek si en marge d'une cérémonie de remise symbolique bu ay riche pour développement activité apicole mi ngi woo état pour mu uti solution euh, pour situation bi nga xam ne euh, bëgguñu mu law. ñu ngi leen ñaan pour ñu mën a fexe ba club mi tijji pour saison bi nga xam ne euh, jàngoro bi lor na ko saison bu daaw bi euh, ren mu xaw a tane parce que ñu bëri ci loolu la ñuy dund. ndaw ñi nga xam ne ñoo bénéficier benn formation pour rek développement euh, secteur euh, mooy euh, appui mooy defar lem bi ñoom déjà premier obstacle bu ñuy jànkonteel pour jaay seen produit mooy rareté touristes yi foofu si région bu Ziguinchor inquiétude boobu ñoom partagé nañ ko ak acteurs yi nekk si artisanat yëpp ñi nekk si station balnéaire yi Casamance région la bi nga xam dina dundu lu métti si saison touristique bi lu koy waral mooy deuxième vague bu Covid buy dessiné wu fi suñu réew Ziguinchor Amady Khalilou Diémé pour la radio télévision Walfadjri Koboda fa la ñuy jëm wax naa ko sànq ma nga nekkee foofee ci diwaanu Ziguinchor nañ jàpp ne askan fa dëkkee la dund jamono ji mënees na koy méngale ak dundu wér yaan euh, benn canal moo xotti seen dëkk bi def ko ñaari pàcc euh, jural leen nag ay jafe-jafe yoo xam ne foo ko nag rek weesu na fa Koboda amul ndox amul courant yoon naka noonu Yankhoba Sadio moo wax ci seen kàddu ñu woy nañ ko waxaat nañ ko fu ne wax nañ ko foofu waaye nu ñu dundoon ñu doon dundee ak suñu papa yi fii depuis ñeent fukki at ba léegi noonu lañ fi nekkee mooy kanaal bi ba gars yi di ñu tuddee Dinkaba mooy ñàkkum ndox bi mooy ñàkkum courant amuñu dara à part bu ñu fi am ak école bi boobu pare na léegi yooyu am nañ ko waaye lu demee côté euh, euh, courant dese na fi ndox wax noppi ndoxu teen lañ fi yor mois de mai fu mu jotee rek teen yi wow nañu suñu waay yi suñu jabar yi suñuy sœur yi la ñu wuti ji ndox pour loolu problème la waa est waa Sen'Eau ñëw nañ fi ñu ne mënuñu branché parce que yoon amul lotissement def nañ ko ba pare def nañu ñoom lu ñuy def lu ñu séddalee ñëpp wax nañ ko ni baaxul wax nañ leen ko ni baaxul d'accord ñu waaye ñu jàpp parce que def nañ ko ba pare ñu ne ñoom def nañ ko duñ ci dellu siwaat ok léegi nañu gëneel yoon yi bu ñu gëneel yoon yi bu ko defee ndox mun nañ ko am dinañ am robinet ñu am courant comme ni ñu ko waree am ñu bay di gas di suul fiil ñëpp xam nañ loolu c'est pour les populations donc loolu lañ leen ñaan suñu bii pont bu nekk suñu diggante ak Kobod ak euh, Suku Papaay kooku wax nañ ko waxaat nañ ko ñu ne ñu woy Promoville moo koy jël en charge Promoville ñëw na ba mu paree ñeenti at ngi nii liggéey yaa ngi nii ba léegi jeexagul waaye Promoville jëlul en compte pont bi donc suñu problème bi day des nawet bi passé ñu dëkk noonu côté yooyu noonu mais gis nañ li ñu fa dunde lu ñu dund ren kenn musul xam nu mu nag nu mu nu mu toll loolu yëpp seen faute donc ñu ngi leen di ñaan vraiment ñu jàppale ñu jàppale population yi parce que Ziguinchor lañu. benn baat ci wàllu politique waa coalition taxawu Sénégal génn nañ kon ci ci gi ñu nekke woon seen i kàddu daal lañu yëkkati di weddi Souleymane Jules Diop Sall mu wax ne euh, Khalifa Sall dafay gisee lu euh, mu benn yoon la mës a gisee Macky Sall ba mu génnee kaso te mooy ndaje mi nga xam woote woon na ko fële ca palais présidence euh, Moussa Taye ñu teewlu ko ci téléphone Isatine mais loolu man dama wax ne Khalifa Sall ba mu génnee kaso ak léegi benn yoon la gisee Macky Sall mooy bi ñu fa demee ci affaire coronavirus bii nga xamante ne audience bëccëg la woon ñëpp gis ko ñëpp dégg ko gannaaw boobu amul beneen daje bu ñu daje du guddi du bëccëg du suba du ngoon du ci biir réew mi du ci bitim réew loolu dinaa ko confirmé man xaw ma ñoom leen tax a jóg ak tax ñuy wax man li ma jàpp mooy ñun li ñuy gëm ak li ñuy def ñun lañ jàpp ak Xalifa ne ñun dañ war a opposé wu de manière ferme et responsable ci yooyu nguur lañ nekk opposition benn lay nekk mooy ñu contre nguur gi contre nguur gi nag soo contre nguur gi di nga dénoncé di nga critiqué di nga foofu lañ toll affaire bu amnistie boobu ñu dégg lañ ci am donc dara leeruñu ci moo tax ñu aussi farataaluñ ko ci vraiment amuluñu benn njëriñ coronavirus la ñuy wax ñu desedi ci ñaari doomu aadama ñëw nañ doolee ko ci limug doomu aadama yi nga xam ne nii ñoo jot a ñàkk seen bakkan ci mbas mi di covid 19 ci bésu maanaam ci test yi nga xam ne jot nañ ko amal juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ñoo dellu si amee feebar bi fanweer ak benn yi ay cas contact lañu ñeen fukk ak ñeenti di ay cas communautaire benn nag moo ci cas importé fukk ak benn doomu aadama ña nga tëdd lalu hôpital ñuy sauvé Sénégal ndax dañoo dañ ndax du dañu nar a delluwaat ci couvre-feu su fekkente ne ñaareelu vague bi ñuy na Khalifa Diagne di ab psychologue ne loolu bés bu amee euh, jàppal ne ay yëngu-yëngu dina am ci mim réew ndax askan wi ñoo ko du nangu xalifa Khalifa Ababacar Diagne ñu teewloo ko ci téléphone Issa dina ma jaaxal trop bu amaatoon ñu nangu ko xam nga lu tax gis nga feebar bi bi muy waaj a ñëw dafa am chance bu autorité yi amoon mooy waxuma la rek ci Sénégal mais ci Afrique subsaharienne pratiquement kenn xamuloon feebar bi feebar bi liñ ci jotoon a ñu ngi ko doon gis ci télé yi mais fii ci Afrique kenn xamagul woon feebar bi bu ñëwee moom nan lay comporté woo alors loolu dafa taxoon gouvernement bi amoon possibilité bu nee dañu def couvre-feu dañuy arrêté tëj école yi dañuy jël ay mesures ñëpp dañ ciy toog parce que moment boobu ñëpp amoon nekkoon ci dëkku tubaab léegi bi feebar bi ñëwee weesu na ay presque dix mois wala mat na ko bi mu fi ñëwee léegi li ñu gis mooy li nit ñi njortoon ci lu bari ci feebar bi nit ñi jàppoon ni noonu la waroon comporté woo fii si Afrique demeewul noonu boo ci tegee problème économique ak social yi nga xam ne feebar bi bi mu ñëwee indi na ko ci wàllu yu bëri euh, secteur informel bi ñooñ boo ci boolee loolu yëpp nga bëgg ñëwaat pour dellu si couvre-feu day nekk lu indi jafe-jafe ba man jàpp naa ni li ci état bi amoon sax ci nga am ay yëngu-yëngu fii boo bëggoon yëkkatiwaat couvre-feu ci contexte bi nga xam ne affaire bi gën na tar risque bu rëy la ci état bi parce que bu ko nit ñi nangoo man dina ma jaaxal trop ci sama jàngat ndax jangaa jàpp ne kon mën naa amaat ay ñaxtu comme ni mu amee woon mais wax naa la ko ñaxtu yi xam nga bële passé dem nañ sax ba presque jege weer nga soog a dégg ñaxtu yi mais bi ci lu ma wóor sama jàngat boo ko yëkkatee rek dina am ay ñaxtu boo ko yëkkatee di nga yëkkati fitna gu rëy ci réew mi parce que ñooñu secteur yooyu li ñu jot dund en tout bu fekkoon ni maay digal état bi du ma ko digal loolu mu ngook loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di Khalifa Diagne su fekkente ne xibaaru bitim réew yi noppi na euh, ñu dikk si ñu ngi may xamale kon xibaaru di euh, bitim réew yi euh, noppeegul tàggat yaram ci la ñuy tàbbi si dalal Cheikh Ahmed Tidiane Gomis Cheikh bi maa ngi lay nuyu. Seydina Omar Ba maa ngi lay fay. dañ koy tàmbalee wàllu football ak Ligue de champions africaine. waaw euh, Tëngéej euh, football club ganaaw bi jaraaf amee qualification ci euh, samedi bi Tëngéej football club moo ko feelu jaraaf nag qualification bu am solo la def dégg nga dem gagné fii ba dem defi match nul fële Nigéria ci benn équipe kano kon nag gannaaw bi jaraaf defee ndam bu rëy loolu Sénégal nag am. ñaari club am yi qualifié loolu démb nag Tëngéej football club nekkoon fële ca euh, euh, Thiès daan équipe Gambie bi ñaari bal yi dara moo ko may mu qualifié gannaaw bi ñu defee match nul 1-1 fële ca euh, Banjul match bi nag kii nga xam ne mooy Ibrahima Ndiaye teewoon na ko. ñii di waa Teungueth FC day daan militeeru force armée bu Gambie ci ñaari bal ci dara mu nekk am ndam bu mag boo xam ne dina tax ñu dem qualifié ci second tour ngir rek dem dajeek benn bu mag muy Raja bu Casablanca waa ci jongante bi nga xam ne moo taxoon ñu jàkkaarloog force armée bu gàmbi ñoom waa Tëngéej FC daanaka ci tàmbali bi dañoo meloon lu xaw a tiit laata nag ñii moomee match bi waaye moomee goo xam ne daanaka mënuñu fexe rek bu dugal benn bi ci camp wu Gambien yi noonu la jongante bi jeexee ci xaaj bu njëkk bi waaye ba ñu ñëwee ci ñaareelu xaaj bi nag ba nu footballee ba mu am juróom-ñaar fukki simili ak juróom ci la nag ki nga xam ni mooy Serigne Mamour Niang benn sanub dellu si la jox bal bi rek ki nga xam ne moom mooy Paul Valère Bassène moom mu yëngal caaxu waa Gambie muy benn ci dara ki nga xam ne mooy wattu mbaal yi deful rek dul gis ay mbaalam di yëngu waaye mënul woon ci bal bi dara beneen bii bi nag gannaaw bon jongante juróom-ñaar fukki simili songukat bii ñuy woowee El Hadj Omar Fall moom it mu dugg rek yokk ci xar mi karaw dugal ñaareelu bitu TFC muy ñaari bal ci dara ngir TFC gàmb amul tus noonu la jongante bi jeexee loolu nag tax ñoom waa Teungueth FC jiitu woon ci Ligue 1 sénégalaise bi laata ñuy dakkal championnat bi ndax mbas mi dinañ continuer di jongante ci Champions League bi nga xam ne moo nekk ci niveau Afrique waaye bi la yoon nag ah dinañ jàkkaarloog équipe bu mag muy Casablanca jongante yooyu ñu ngi ko jàpp ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre bi ñu nekk waaye dellu si bi nag ñu ngi ko jàpp nag juróomi fan jàpp juróom benn fan ci weeru janvier ca 2021 Thiès Walfadjri Radio TV Ibrahima Ndiaye gannaaw bi Teungueth football club amee ndam ci kaw forces armées gambienne bi club boobu waaye nag euh, ki leen di euh, tàggat mooy entraîneur adjoint bi euh, nangu na ne que équipe des na bu buggee sore lool. ñu ñëw delluwaat ci match ba déglu kii nga xam ne moom mooy entraîneur adjoint bi di Abdoulaye Guèye ci micro Ibrahima Ndiaye. ñaari match yoo xam ne la ñaari période yoo xam ne bokkul la benn période boo xam ne damay wax ne sax mosuñu ko def période bu nul. en première période deuxième période boo xam ne au moins bi ñu bi ñu euh, rectifié xale yi ñëw nañ ak beneen ak beneen euh, ak ak ak beneen euh, taxawaay ak xaw ma melokaan la ñu wax ah. beneen beneen au moins pour pour pour mën a def la la différence je pense que peur de perdre mu ngi si bañ a yàq mu ngi si bon je pense que tamit enjeu bi tamit mu ngi si woon parce que tamit xam nga booy joué di calculer naan su ma su ma adversaire bi ñëwee un but wala un un ñu dem tir au but yooyu je pense que loolu tamit si de même que sur le plan physique tamit joué si parce que équipe boo xam ne toog na sept sept mois sans compétition euh, xam nga mënul lépp lépp mënul ñëw rek yemb noonu euh, waaw mais ñu ngi ñu ngi siy liggéey au mois pour passer le euh, prochain tour parce que prochain tour bi ni ñu joué boo ko joué boo ko joué ci que dinañ la écraser parce que tey jii Maroc quoi qu'on dise Raja ak AS Force Gambie bokkul yeneen niveau la <laughs> bokkul ñëpp xam nañ ne Raja beneen morceau la ñu tamit bon dinañu dinañu jéem a liggéey pour au moins pour àgg seen niveau ñoom pour mu leen a éliminer. jërëjëf kon mbokk yi bu ñu jógee ci wàllu football dañuy wax ci wàllu afro basket U18. waaw euh, Seydina Omar euh, Ba sunu équipe euh, maanaam bu U18 ci wàllu góor yi ñoom nag ñoo mujjee nekk deuxième ci classement bi ci ginnaaw Égypte fële ca Afrobasket bi amoon fële kon nag waaye nag fu mu nekk nii bu suba dinañu am jongante ak Guinée waaye nag ki nga xam ne moo leen di tàggat di Madièyna Fall moom nag nee na il faut que mu indi ay coppite ci équipe bi pour équipe bi mën a gën a taxaw am taxawaay bu am solo damay def rek bàyyi leen ñu déglu ko. équipe bi mu amoon Thiès jamono ji xàmmeetuma leen ndaw ñi faaw euh, ñu daal di dikkaat ci ni nga xam ne noonu lañ doon faral di jouer mais tey li nga xam ne moom lañ wane bokkut ak daan wane seen système de jeu faaw ñu indiwaat ko waaye nag sant yàlla bu baax a baax nag bi ñu amee ndam ndax jamono ji suñu xel moo gën a dal foofu te suñ demee hôtel faaw ñu gën a noppaluwaat gën a wax waaye nag ñi ngi sant yàlla bu baax a baax bi ñu amee ndam ci seen kaw te nga xam ne ñoo di waa Guinée ñun ñoo leen di ëpp foofu euh, suñu xel mooy gën a dal ndax ñoom lañ war a amaat sax ci demi-finale yi waaye xam naa ne moom loolu du war a jafe ndax faaw ñu tëdd noppalu ko bu baax rawatina joueurs yi bu ñu ci hôtel yi ñu toog noppalu gën a xoolaat équipe bi bi yoon sama entraînement dinaa ci ànd ak ay joueurs yu bari te it dinañu indi ay coppite ci li nga xam ne jotoon nañ ko def amoon nañu ay reprise yu baax ci njëlbeen gi waaye nag ci mujjantal ga dafa dem ba amoon nañu ay reprise yu baax ci njëlbeen gi waaye nag dafa dem ba ci mujjantal gi ñoom ñëpp ñu bëgg a demandoo ci rebond yi te loolu mënta nekk faaw mu am ñett ñoo xam ne ñoo war mën a taxaw ngir défense tey nag li ñu wane man xamusuma ko xàmmee ñoom daanaka ñu ci bare bari dañoo xawoon a sedd seen xar kanam yi lewet lool loolu nag du mën a ñëwaat indiwaat bu baax a confiance ci seen biir loolu moo waral sax ñu dem ba benn jamono Guinée mën a woon lu toll ci sept points ndaw ñi nag faaw ñu mën a soppi te itam sax fawu ñu wax ak ñoom leneen lu bees ngir euh, ñu mën a gagné match yi nga xam ne moom lañ desee ndax jongante yi dafa soppeeku fi mu nekk nii leen rek moo ñu dese mooy ñu gagné jàll ci demi-finale yi wala ñu gagné ñu ñibbisiwaat suñu kër loolu nag yaakaar naa faaw ñu jëm ko moytu man am naa chance euh, jouer ay demi-finale coupe d'Afrique yu bari te xale yi nga xam ne ñoom laa gis buñ duggee ci vestiaire yi euh, soo moytuwul mën nañoo soppi xar kanam te xam naa ne itam am nañ yéene ngir mën a dem ba jeex mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di Madiène Fall ay kàddoom kon kii di Issa Tine moo ko doon tekki ci wolof Mbacke wàcc nañ ci mbedd mi di réclame ay stade waaw euh, booy xolaat rek euh, Seydina Omar Ba région yu bare wala ville yu bare wala localité yu bare amuñu stade Sénégal sax booy xoolaat sax benn state rek moo fi nekk boo xam ne homologué par la CAF ak FIFA mooy stade Lat Dior rek moo fi nekk euh, ba tax na ñëpp a ngi yëngatu waa Mbàkke nag ñoom nag nee nañu ñaaw na ñuy euh, football ci ab euh, maanaam suuf dégg nga ci gannus ba na mu nekk loo xam ñoom nag nee nañu ñu ubbi leen seen state defal leen ay stade ñu déglu kenn ci ñoom seen porte parole ci maanaam ki structure boobu ñu teg génération 2003 ñu déglu Djili Diagne ci micro euh, Mamadou Mactar Sarr. dañuy ci wàllu sport loolu moom mooy génération bi mooy moom moom lañ jiite donc lii liñ tax ñu ñu koy organiser chaque année ñu ko def mooy ñu di booy ñu jouer seen biir euh, ñu ñu ñu ñu seen biir. c'est juste pour faire jouer les les jeunes ma ñëw fii football parce que ñoom tamit loolu mooy seen métier te ay gore lañ am nañ talent bi donc dañ leen war a wan moom ñëpp xam nañ ne dafa fii dañu manqué manqué nañ fépp bërëb buñ koy defee amu fi. gis nga fi ñu koy defee ci mbedd la da ngay ñëw taxaw seetaan gaar mooy xaw a tane à part loolu amuñu leneen benn stade lañ fi am ngi en chantier depuis des années ñu ci topp di daw mënuñ sotti. bon mais mais mais ñun comme loolu nga waxee rek ñun lépp loo xam ne nii wàllu sport la dañ ci yëngu nañ ci dem ba luñ mën bon ñu ngi ciy dox di ci wax bëgg vraiment nit ñu dimbali ñu ci loolu ñi nga xam ne ñoom ñoo yor ndombay tànk réew mi mën a dimbali jeunes yi Mbàkke ñu am au moins fu ñu a defee sport parce que tamit fii ay talent kese la ku seetaan football booy yi xam ne talent la te ñeneen ñi gën a ab talent sax final donc kon ñu jàppale gone yi ñu dem parce que ñun ñi ci lañ jaar malheureusement amuñu woon loolu donc gone yi nga xam ne suñuy rakk lañ ak suñu jabar ñoom war nañ leen mën a jaaral ci yoon boo xam ne ñoom ëllëg buñ tollee âge bi ñu am du directeur lañu doon football. waaw ba lii de moo fi mosoon ci wàllu tàggat yi xam. Maître Tidiane Gomis kon ñu ngi koy sant ko gërëm mbokk yi kon ci foofulee ci la ñuy tàbbise ak yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéene kaay ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm ndax dina def troisième mandat am moom njiitu réew mi Macky Sall doon laaj bi samp ci biir yéen kaay bi di Walf Quotidien kii di Landing Savané njiital AJ/PADS authentique joxe na ci xalaatam Landing ne bu sañoon troisième mandat du am Landing ne ci réew mu am démocratie ñaari mandat doy na sëkk njiital AJ/PADS authentique bari na ci Afrique bi le ay njiitu réew yu soppi seen constitution ngir bëgg cee dagaan baatu askan wi maanaam amaat troisième mandat nañu xam ne lu ne mun na cee xew waaye luñ ci góob nañ ko gar yéen kaay bi di critique ne njiitu réew mi na ay nitam itam jël na lu toll ci fanweeri responsable APR yu mu sas ngir ñu mun a taxaw nguur gi yu taxaw ngir mun a faram-fàcceel askan wi liggéey nguur gi ak jëmmal parti bi di APR jëne cabinet yooyu le guerrier yu APR ña ko seq bokk na ci juróom-ñaari ministre ña nga ca ak ñetti député ak ñaar fukki DG lépp ngir leeralal askan wi lu bëri fu Ousmane ko waxee fu ne ñu teggi ko leeral fa Vox Populi ne tàmbale nañ ko yekk lu mel ne xeme bu ñu sukkandiko ci Pape Mawo Diouf mi communication coalition Benno Bokk Yaakaar gis jiital ndax gëmul Sénégal boppam dong moo ko ñor moom jiital Pastef nekkew fi lenn lu dul bëgg a tuur lëndëm askan wi bu ñu sukkandiko ci Pape Mawo Diouf taabi di las am ñum cay diisool audience ya tàmbalewaat na jàmm newaat na ñooy seen diggante yéene cabinet te dootul yàgg njiit réew Macky Sall dina dalal beneen Moustapha di Moustapha Diakhaté Dakar Times ne APR ak jafe-jafeem jot na njiit réew bi Macky Sall jël matuwaay ya ca war ci bile parti doore ko ci Mahmoud Saleh ma ñu ne dara jaam tàmbale naa wàññeeku gannaaw bu ñu gisee ne njiit réew bi Macky Sall bi ku mel ni Moustapha Cissé Lo ak ñeneen ak ñeneen ñu mu fas yéene feggool yéene kabi di direct news ne directeur de cabinet bu njiit mi di Mahmoud Saleh coow topp na ko ci jamono ji gannaaw kàddu yi tukkee ci mambay ñaa yàggut mi xam le ne Mahmoud Saleh mi le njàngam maanaam CVM mayu ko mu jiite bi le ndombol tànk yéene kabi ndax jotul Idrissa Seck joxe xalaatam ci dossier Mahmoud Saleh yéene kabi ndax jotul Mahmoud Saleh tekki ndombol tànkam ngir a Mahmoud Saleh xamle woon na fi ne njiit réew mi Macky Sall ak Abdoulaye Wade mosuñoo réeroo ña ngay waxtaan ña ngay gisee bi la yoon Souleymane Jules Diop moo ko feelu xamle démb ne Khalifa Sall ak njiit mi Macky ña ngay gisee ña ngay waxtaan ñoom ñaar Souleymane Jules Diop yemu ne am na yeneeni kàngam ci opposition bi ña ngay seeti ji njiit réew mi Macky Sall te kenn yëgut ay kàddoom ci la turbine Moussa Taye mi kàdduk taxawu Sénégal bu Khalifa Sall jot naa weddi ay kàddu Souleymane ndànk gise gi dox ci diggante njiitu réew bi Macky Sall ak Idrissa mun naa gàllankoor coalition Benno Bokk Yaakaar Walf Quotidien bu dee Idrissa Seck ci jamono ji ma ngay dooleel boppam ca conseil économique et social et environnemental gamu jiite am na ñum fa fal bees yéene cabinet bokk na ci Awa Gueye Kébé ma doon conseiller am ak Lamine Ba mam fa jox ndombol tànk ba ci Kumba Nguy Caam ak ñeneen ak ñeneen Walf Quotidien ko ca penc ma jëm ci dossier tëdd Omar Sarr daal di fàttali ne dialogue national ba woon la waraloon teewaayam ci googule ndaje bokkoon na ci fexe ba Karim Wade am afiya mun a génn ci kaso bi les écone ma nga woon démb ci assemblée nationale moom omarsar Sarr waaye jot nañ ko fàttali démbam bu ñu sukkandiko ci député Bara Mbacké Dolly mi xamal Omar Sarr ne ña lay tàccul tey ña lay kañ tey ci assamble nationale fàttalikul ne démb ñoo la doon fitnaal ñoo la doon yekk lu mel ni xeme ndax boo fàttalikoo ci ñaari fan ci weeru novembre 2015 ñoo fi jotoon a xotti taret say yére Omar Sarr fàttalikul ña lay tàccul tey yi di la kañ te moo ne de ñoo la yóbbuwoon kaso ñaar fukki fan ak benn ci ay kàddoom ci les échos Bara Dolli Mbàkke xamal Omar Sarr fàtte xeju fi ndax lu bari xew na fi laataa ngay fekki njiit mi Macky ci biir yéene kabbidi la Soleil avocat bi di Robert Bourgi jot naa naw njiit mi Macky ci taxawaayam bokk na ci na mu doxalee digganteem ak njiit ma woon di maître Abdoulaye Wade ba jàmm na ñooy seen diggante lu aju ci dialogue bi fi woon Robert ndax ba tey dara leeragul ci élection ngi dund jafe gu doxagul ndaw ñaa ngi ni am yaakaar gu tas taxaw ca poste mañu ne am na bor gu toll ci ñeen fukki milliards ak ñaar tax na ci jamono ji liggéeykat yu bari ca poste mun nañ fa jaare ñàkk seen xëy doon lu jaaxal lool kuréelu syndicat ya fa ne tàmbale nañoo dànkaafu di leeral ne poste bu ci nguur gi jógul ci sànku la jëm daal di fàttali ne mat na lu toll ci fukki at ak juróom yoo xamante ne gisuñu fa benn organe de contrôle bu état bu weesoo OFNAC yéene cabinet audience mun a dox diggante njiitu réew mi ak Abdoulaye Bibi Baldé ma jiite poste le quotidien xëy waxtaan ak Pape Samba joxe na xalaatam ci centre redressement yu Serigne Modou Kara Pape Samba ne ci yooyu le bërëb jot na faa yóbbu ay jarbaatam waaye nekkewuñ fa woon lenn lu dul woy ak tux yàmba Pape Samba ne ci yooyu le centre redressement yu Kara ña ko doon feyeku lu toll ci fukki million ak juróom yoon Karim Wade am afiya ba fekkiwaat waajuram di maître Abdoulaye Wade fii ci réew mi yéene kabi l'observateur ne coronavirus bi tàmbale naa jur tiitaange ci mim réew kaa tàmbale nañoo yokku ndax duñu dem ba delloo siwaat couvre-feu ay kàddoom ci l'observateur docteur Kalignan di sociologue xamle ne buñ fi bëggee jëmmalaat couvre-feu sénégalais duñ ko nangu Khalifa Ababacar Diagne nguur gi bu jéemee couvre-feu mun na cee am lu ko neexut Mouhamed Dia di économiste xam-xamam màcc jëm ci wàllu koom ne beneen couvre-feu ci jamono ji mi du doon ngeneel ci koomu ne boo demee ca dalal jàmm dem ca fànn daanaka ka grave ya tàmbale nañoo yokku lim bu tàkku ci ay doomi aadama ña fa lottu fa lool yéen a kaabi di li quotidien kaayaangoog ña yokku jon lu jur tiitaange ci kilifa yi rawatina ci nguur gi xayma nañu lu toll ci juróom-ñetti fukki doomi aadama yu am bees coronavirus am ku ñàkk bakkanam ci lalu hôpital yi yéen a kaabi di stade xëyee ndem si yàlla Pape Bouba Diop ma ñu denc niki samedi ca armée lu dàngu ca Rufisque yéen a kaabi ne mu takkoo takku foo ko natt weesu na ko ñoo gunge gaynde gi di Pape Bouba Diop ba ca Arène ne Sénégal ñàkk na ku baax Gadio Cissé mi jiite école de football Pape Bouba Diop xamle ne Pape Bouba Diop dem na waaye royukaay la woon demam gile war naa mun a jàngal ñu bëri xam ne jëf ju baax rek am solo Matar Ba jor ngi ñu denk wàllu tàggat yaram ay kàddoom ci stade daal di xamle ne jot nañu delloo njukkal Pape Bouba Diop ci Coupe d'Afrique 2021 gi ñu jéem yéene cabinet gaynde gaangoog ma nga tëdd ca Rufisque waaye bésam bile jot naa feeñal lu bëri maanaam jëf jaajëf jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ñoo jàppoon ci xibaar yi ba mu yemb sax programme moo fare woon ci xarale gi réalisation Pierre Edouard Faye moom Pierre Edouard Faye sax ci kanam tuuti dañu